kese foofu foofu la yëpp. loolu moo tax on wala en fait des waaw ñun day euh, tey li ñu jóg yëkkati mooy euh, dox ci dëkk bi xool bërëb yi nga xamante ni bii nawet da leen di noggatu muy bërëb yi nga xamante ni bii koñ boo ci mënti dem wala commune boo ci mënti dugg bu tawee askan ya fa yeewoo danañ am ay jafe-jafe loolu nag li mu indi mooy ñeenti ñetti communes yi Thiès Nord Thiès ouest Thiès est ak la ville ñoom ñoo boole seen doole seen xam-xam seen man-man ak seen pas-pas ci xool nu ñuy indi ay solution ci lii wëlbatiku woo service yi nga xamante ni bii ci biir Thiès ñoom la yoon dogal ni ñoom ñoo am capacité ñoom la yoon may doole yi liggéey ci wàllu woowu ñu ànd ak ñoom pour xool lan mooy problème yi gis nañu nag problème yi bokk na ci problème yi li indi solution yi wàllu Euh, yàkkali wàllu dindi mbalit wàllu xoos maanaam lu ñu lépp lu ñu mën a tuddee wàllu curage mais bokk na ci solution yi tamit ñu seet ñun askan wi képp ku ci nekk ci sa biir ban àq ngay entretenir ban ak ngay séq yow ak li la wër yow ak sa jamono yow ak sa jaww apporté biñ ko xoolee liñ ci gis mooy kano euh, yu ci bëree bëri bëri li ko fat mbalit la mbalit lañ ciy sotti <laughs> loolu bu ñu doon liggéey li ñuy def nii tey coono gi ñu ci daj ak suba réunion technique bi ñu war a def ñu ko defee ba noppi jël xaalis def ko ci curé bu ñu wëlbati ko wane ginnaaw nit ñi jëlaat mbalit sànniwaat ko ca place yooyu dafay mel ni lu tubaab di wax éternel recommencement amul njariñ li ñuy wax mooy nañ ñu dimbali ci lii ndax ñun bu ñu koy def euh, askan moo tax ñu koy def ku ci nekk na ci xool ban contribution lu ci mën indi ku ci mën ta junni dugal ko ci wala ñu ne la jëlal mbuus di ñu ñaan yàlla bu kenn sànneti mbuus bu kenn sànneti xeer bu kenn sànneti mbalit ci biir canaux yi bu ñu defee suñu liggéey nag ànd ak service yëpp am nañ yaakaar que ni solution yi ñu ciy indi euh, bu nawet bi ñëwee euh, jaax jaaxle yi doon am dootul amati. dama ni solution yi am na solution yoo xam ni jooni jooni la euh, mën na mën na ñëw am na solution yoo xam ni faw ñu téem koo jiim koo tàllal ci ci ci ci at yi ci fan yi di ñëw muy yoo xam ni mënut a sotti léegi mais loolu dañ ciy liggéey li nga wax nag muy dig digloo bi. ci ñetti communes ak commune de ville bi ñu bëgg cee indi li ñuy woowee euh, dajale suñuy doole mooy li tubaab di wax intercommunalité ñun loolu la ñu décidé bu ngeen seetloo ñun noonu la ñu defee campagne <laughs> euh, du ma aw sànni ma xeer presse mais ñun suñu campagne gars yi gisuñu ñu woon parce que nekk ñu woon ak ñun <laughs> mais noonu lañ campagner euh, noonu lañ gagné dañu li ñu bëgg wax rek mooy nii lañ fas yéene liggéeyee ku ci nekk la nga man ak lay sa doole nga jël ko boole ko mu doon benn parce que lu benn nit man ñeent ko ko gën a mën jafe-jafe yi ñoo ko bokk daanaka mais gëm nañ ni bu ñu dajalee suñuy doole ànd ak les service yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi may wax ci urbanisme ONAS UCG sapeur pompier service d'hygiène eaux et forêt waa université ñun ñëpp bu ñu boolee seen xam-xam parce que boo demee université mémoire yu bëri bind nañ ko ci lan mooy indi solution ci problème yi am yooyu yëpp bu ñu demee seeti ko bu ñu ko dajalee gëm nañu ni solution yi indi dana nekk solution yu jariñ ñuy wax nag ñëpp ñu ngi leen di woo ci liggéey bii nañu ñëw jàppale ñu ci xam ni defuñu ko pour ñun askan wi tax ñu koy def te lépp loo xam njëriñ askan wi la incha allahu rabi heure bu ñu ci mënti wax ci la ñuy fekk li moo nekkoon kàddu yi euh, ma euh, docteur Babacar Diop maire de la commune de ville euh, maire de la ville jiite maire commune Thiès ouest Ousmane Diagne Thiès est Birame Souleye Thiès nord ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax askan wi ñi ngi ñëw di remercier également presse bi ci nit ñu accompagner ci liggéey bi ndax gis nañu bii passé bi ñu yëkkatee wàllu setal mbedd mi nit ñu ci taxawoo nit ñu ci communiquer mu nekk une communication de qualité ñun nag lii la ñuy xaar ci presse bu amee manquement parce que ñoom c'est les premiers conseillers def nañ ko bu amee loo xam ne njariñu askan bi la nañ ko fësal ànd ceek ñun et ils l'ont fait sans taxaw nañu jox leen ñu lii wala jàppale leen ñu nii Euh, ci naaj wi ci coono bi ñu bokkook ñu mëq ci ngelaw li dàq keer dàq koor et cetera ils l'ont fait ñu leen di sant baax a baax di am yaakaar ni collaboration bi dina jot jàmm ci askan wi asalaamaaleykum wa rahmatullah